jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokk yi jëmm ji ay kilifa ñooñu boole ak ñoom muy jàmbaar di borom xam-xam muy Serigne Assane mbay saalum saalum yaakaar naa tur wi yàgg ngeen ko dégg borom xam-xam la kilifa la ñaankatu yàlla la mu nekkoon ci xam nag ne duma ma feeñ ci télé nekk ci xam ne du ma feeñ ci caméra mais fi jamono toll ak yàqu-yàqu yi ñu mel ne siñ Assane Mbaye mii bu ñu toogee téye seen làmmiñ bu yomal xeyaamee mën nañ koo lay suñu borom parce que ñii dafa am xam-xam bu yàlla def ci ñoom. chef de canton yi ak chef d'état yu bëree bëree bëri yàgg doxantu fekk leen ba seen biir dëkk Saalum di jëflante ak ñoom ñun nag tey ñoo leen loqati ngir leeral leen ne mbokk yi nekkati xam-xam am na. li xew ci dëkk bi nag li ma ci wax bëri na mais laata loolu dañu bàyyi Serigne Assane Mbaye Saloum Saloum mu nuyoog askan wi ñu soo a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi Saloum Saloum ñoo ngi lay ziare. alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ñi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa jëmm di leen balu àq bu baax te di leen baal àq di ñaan yàlla mu nangul ñi suñuy jaamu yépp rawatina eet gu màgg gii ñu jogee muy tabaski yal na yàlla nangul ñu ko te def si réew mi jàmm def ko ci bitim réew salaamaaleykum wa rahmatullah yàgg nañoo dégg tur yi muy sëriñ Assane mbay saalum saalum nga dëkk Saloum mais yàgg toog ne du ma bougé ku soxla na ma fekk si nga ne ku ma fekk fii ci sama dëkk sa aajo faju ba ñu bëree bëree bëri sax ba ñu daan xëccoo nguur lu mel ne Kaolack ak li ko wër jàpp dingiraay jëm nooro ba Touba Saloum ba la ko dalee ginnaaw maabo ak mbir mbirkilaan bëri na ci monsieur le maire yu bari yoo xamante nii yàggan nañoo xam ne yaa leen téel seen tànk ngemb leen ci wàllum gàllaaj mais pourquoi pas nga ne woon doo génn ci média loolu tamit bëgg naa nga andiwaat ci li tax nanguwuñu woon a génn média mbir la rek li ñuy wax ne lu ñor rek tàbbi dañoo nekkoon ci ay mbir yoo xam ne doon ci xaar ndigal mm-hmm. te xam ndigal dafa am solo ci ab jullit lépp lu muy def rek daf cee war a am ndigal daal di ko def li ñuy wax rek euh, nit ki bala ngaa def dara bàyyil ba am ci ndigal waaye ñun ba ñuy am ak ndigal si liñ nar def dañ koy jaaree si suñu woy jur mhm. maanaam li tax ma ne dañ koy jaare suñu woy jur mooy suñu way jur du fi nekk ñu génn di di di def suñu yëfu bopp dañuy bàyyi bam jox ñu ndigal wala moom mu jógee fi te jógee na fi yal na ko yàlla yërëm yàlla oyofal suuf si kawam looloo tax nag ñu dëxañu woon li ñu tax a génn dëgg dëgg nag si internet bi tey pour wax du dara laaxi biir jaami yàlla yi la rek parce que dañoo gis ay mbir yoo xam ne dafa xew léegi mu métti ñi lool si wàllu ñaan muy naxaate bi ak ñàkk xam bi. kon jot <laughs> waaw muy naxaate bi ak ñàkk xam bi parce que tamit wax dëgg yàlla eh, xaalis dafa sax si xol te nit ki jóg suba teel dar-dari sonal boppam dem liggéey ngir war a teral njabootam. am jaaxle ñëw si yow nga yokk ko jaaxle ndax tamit nit ki am problème tey ñëw si yow da nga koo war a dimbale waaye nit ki am problème ñëw si yow nga wëlbatiku nax ko yaa ngi koy yokk problème te kooku bu dee yaa ko rey moo tax nit ñi dañ jàpp na rey nit lenn la rey nit du jël paaka jam ko wala agressé ko déedéet rey nit dëgg-dëgg mooy nit ki sonn si ay mbiram ba bëgg dee ñëw jox la alalam nga toog te xam ku ne xam na ne alal dafa sax si xol loolu nag moo ma métti ba ba ma ne man naa jóge Saalum ñëw Ndakaaru dimbale jaam yàlla yi parce que tamit napp sa coow la faaw ñu ñëw fii mën a dimbale jaam yàlla yi pour nit ñi xàmmee ñiy naxe ak ñiy wax dëgg loolu moo ñu indi fii. yàgg nañoo dégg suñu yaay yu baax yi surtout ñi nga xamante ni ah, ñoo daan faral di nekk ca marché ah, Kaolack bi da ngay dégg ñu naan ah, jigéen su bañee ak njabootam rëcc ko jigéen su bañee daraam ump ko na dem ci sëriñ Assane Mbaye saalum Saloum mu xoolal ko ay mbiram dégg naa loo wax nit dana dox ba teg ci bëtam wax jooju ana lan nga ciy tontu. alhamdulilah dañ koy sante yàlla rek yàlla dimbale nañu ba lépp luñ mës a wax ni rek teg na ci bët. te loolu ñu ngi ko amee si benn bunt rek nag. Mm-hmm. muy seet. Ah. ku ñu xam si seet nga ñu xam. ndax nit ki mënoo faj benn aajoom te du danga koo seetal ay mbiram. Mm-hmm. seet mooy souvent ma wax ko nit ki boo bëggoon dugg ba nga bëgg a dugg si néeg bi léegi. si mm-hmm. bunt bi nga jaar. su ma fi jaaru woon dina nekk problème même su doon si falanteer bi laa jaar duggin bi du rafet seet nag mooy nit ki pour nga ñaanal ko faw nga seetal ko ay mbiram ba mu leer ko naññi naññi naññi ñun bokkuñ si ñiy seetal nit ki na la ku gàtt ka ku njool ko déedéet dañ lay seetal wax la lu leer naññi pour mën a jëfandikoo say mbir maanaam pour man laa liggéeyal fajal la li tax ñi ñi daan woowee loolu dafa dem ba nekk xam-xam boo xam ne bu teer teer la woon ci ñun muy lan muy nit ki ndiggam di métti mbaa tànkam mbaa daraam ñu ne dama seeti sëñ Assane loolu moom dañ ko doon fooye daawuñ ko sax fayee ko parce que xam-xam la bu yomboon si ñun seet nag mooy bunt boo xam ne moom ku la wax ne dafa yomb dalay nax mook benn bunt daneen ci ñëw muy noob ñaar yu jafee ngi noonu noob ak xam-xamu seet ñaar yi moom la nit ñi gën a song te mu nekk xam-xam yi gën a jafe muy xam-xam yi gën a jafe li tax ma wax la lool ñun ñaari xam-xam yooyu dañ koo tarbiya ba am ci cër cër biñ ci am nag mu nekk lu doy waar parce que yaa ngi wax ku ñu xam si noob nga si si si si si si seet nga ñu xam ñun dañuy seetal nit ba wax ko ba wax ko këram la fay xew waxuma ñu seetal la rek wax la sa yëfi bopp maanaam daañ la seetal ba wax la li la wër maanaam li wër say kër la fay xew sax des fois dañ la koy wax te li tax ma wax la seet doy waar seet si nga mën a génne mbiru nit li paase si moom si nga mën a génne mbiru nit lii ñëw si nga mën a génne mbiru nit si lim nekk te loolu yëpp ñun dañ koy génne si seet seet daal yàlla may na ci alhamdulilah loo xam ne dañ koy sante yàlla bu baax bu ñu tàbbee bu ñu jógee si seet nga xam ne ku ñu xam si nga ñu xam ñu ci sante yàlla bu baax ñu ñëw si Euh, noob. noob waaw lu doy nga ciy def. xam nga man bala maa noobal nit dama lay defar ba pare. parce que xamalu tax. Hmm. nit ñu bëri dañoo yàqu. Oh. xamalu nga lu leen yàq dem ci sëriñ bu mu mënut mu leen di jéem a noobal. waaw parce que xam nga lu tax. yaa ngi noob dafa nekk lu doy waar. Hmm. maanaam tey nit ñi su fekkente ne nit ñu bëri maanaam su fekkee téeméeri nit jóg nañ di nooblu ji. Hmm. juróom benn fukk yëpp dañoo gën a yàqule si wàllum noob bi maanaam sëy bu am problème ñu ñëw na dañ koy defar sëy ba day gën a am problème te yooyu loolu da ngeen koy gis nit jóg ne day dem si sëriñ pour mu noobal ko digganteem ak jabaram wala xale bu jigéen bii mu bëgg nangam nangam diggante ba gën a doy waar te noob lu yomb la am na loo xam ne si guy lañ koy def garabu guy am na loo xamante ne si garabu euh, neew lañ koy def am na loo xam ne si suufu tànk fu mbaam dëgg ba jóge lañ koy liggéey maanaam nopp dañ ci am loo xam ne moom lu doya doya doya doy waar la maanaam jubóole nañ ci ay nit si anam yu bëree bëree bëri maanaam duñ bëgg sax di wax maanaam su fekkonte ne tudd tur day dagan si lii émission bi yëpp ay seede lay doon waaye dañ ci am résultat ba taay maanaam noob moom muy tubaab muy jullit bi muy kudut jullit bi dañ ciy def résultat yu wér lu leer nañ alhamdulilah si côté boobu si wàllu nopp waaw. dégg naa am na bouteille booy joxe bouteille bu ndaw la bouteille bu tuuti la siiw na ci diwaanu Saloum ak li ko wër ah, nga ne ma ah, bouteille bi 313 313 garab moom moo ci nekk ak 313 ay mbirum alxuraan bijël bi nga ne ma ci alal rek lay dox ci wër sa kese kese lay dox sànq bi nga may décortiquer biteel bi. bëgguma woon lu dul naan ko nga ne ma kenn du ko naan nag des koy raayoo waaye bitel boobu ci wërsëg rek wërsëg kese lay dox. alhamdulilah maanaam wàllu wërsëg dañ ci am ñaari pàcc duñ liggéeyal nit si wàllu wërsëg kese lu dul ne dañ laa ut indil wàllum cat. yaa ngi wax butéel bi waaye butéel bi nit du ko laal te fekk parewuñ ci yow si wàllum cat. maanaam ci wàllum gàllankoor. parce que soo ko laalee. te fekk deferu woo lu ne mën na laa dal kaso sax mën na laa mën ngaa dem kaso sax. ndax ndax fooraay bi. maanaam duñ koy yëkkati rek jox ko nit noonu. Mm-hmm. bëri na ñu yàgg ñaanal. Mm-hmm. ñi dem ak ñoom ay weer dog leen koo jox. doo ko jox ko parce que butéel bi. Mm-hmm. damay wax toujours si wàllu garab maanaam garab dafa am ay façon. su fa ma gis nit nga dem mu jël euh, sunguf boo xam ne xam nga man dama xam sunguf. ñu jël sunguf boo xam ne dalay leer ne garab bii ñu ko liggéeyee dafa am dëkk. bépp garab bu am dëgg boo ko sangoowee pour wàllu ubbee ko laa ubbi bépp garab boo xam ne dafa am dëgg laa wax. Hmm. képp ku ko sangoo. Hmm. garab boobu mënul laa ubbi. Hmm. léegi nag loolu nit ñi xàmmewuñ ko ci ñaan. parce que ñaan tamit faaw nit ki jàng ko. parce que garab bi nga xam ne amul dëgg garab boobu mooy dox ci wàllu ubbeeku. waaye garab bi nga xam ne am na dëgg kook ci wàllu kaaraange lay dox. ñi nag maanaam dañuy dugg ci àll bi génnee la garab bi nga xam ne dafa am dëgg maanaam si juróom-ñaari garab la ñuy liggéey wàllum cat si juróom-ñaari garab la ñuy liggéey wàllum bayre ak ubbeeku juróom garab yi nga xam ne la ñuy wàllum cat mooy yi am dëgg su ko mayee mayewoon ma lim ko waaye duma ko def parce que man sama xam-xam foraatuwuma ko duma joxe benn secret du ko maye parce que. secret ku ko yor doo ko maye. du ko maye man du ma def ñooñ sax ni ñuy génn di wane lii lii lay jëriñ wala nii déedéet parce que bi ma ko soxlaa dama dëxañu woon di ko jàng. yaa ngi dégg moo tax juróom-ñaari garab yooyu képp ku ko am si wàllum cat nga def ko képp ku la jéem a liggéey day dee. yaa ngi dégg te loolu moo gën a ndaw si li la nit ki di def képp ku lay jéem a liggéey te danga dem ba teg si sa bët ne kii daf ma doon liggéey. balaa juróom-ñaari fan. yaa ngi dégg. soo si jógee ñëw si wàllu ubbeeku mooy butéel bi biñ liggéeyee butéel bi nga xamante ne moom it juróom-ñaari fan nga koy sangoo. juróom-ñaari fan yooyu bu matee ku lay teree siiw wala ku lay gën a ëpp daraja si nit ñi du am moom it si juróom-ñaari garab la garab yooyu na mooy yi amul dégg. garab yooyu da ngay dem féete garab gi côté bu nekk nga xas ko. Mm-hmm. def ko sunguf sunguf boobu noonu maanaam afaa nga koy def sunguf jigéen moo koy dëbb te jigéen ko koy dëbb du gis reegal maanaam jigéen la goo xam ne mosagul gis reegal uh-huh. mooy dëbb sunguf bi te sunguf boobu kenn du ko weer si naaj si ker lay nekk ba wow moom lañ ko liggéeyee secret bi loolu lañ ci mën a wax uh-huh. waaye liy njëriñ la moom mënuñu ko wax si émission bi uh-huh. comme yàgg nga dégg ñi ñi siy tudd rek alhamdulilah ndax butéel la bu doy waar. waaw bu doy mbokk yi numéro téléphone wu Serigne Assane Mbaye saalum Saloum mi ngi noonu affiché ci suuf écran bi képp ku ko ci woo rek di ko jot numéro yaa ngi noonu am na WhatsApp Serigne Assane euh, tey bëgg naa laa laaj ci euh, jigéen guy mooy jëkkëram ana moo mën a tee fexe ba jëkkëram bu ko fa bàyyee moo xam daa tukki moo xam daa dem marché jabar ja du tiimante keneen ku dul borom këram. waaw loolu. liggéey nañ ko waaye dañoo dem ba yàgg ñu am ci sax gàcce ndax dañ koo liggéeyal benn waay boo xam ne dafa wóoladi woon jabar ji bi mu ko wóoladee ñëw ñu defal ko lañ koy defal ba muy sëy soxna si dañ leen a bett te pour mu dëñ faw nga am loo def oh. pour loola dañ maanaam si xaj yu maanaam loolu si liñ koy liggéey xam nga ñaari xaj bu ñuy tëbante mm. day doy waar. day yàgg dañuy téyewaante. day kal kal boobu muy kal soo ko defee sa soxna képp ku ñëw di sëy moom day kal te dang leen fa fekk te la koy dindi mooy yaa koy def mu deñ oh. moo tax côté boobu alhamdulilah. ñaar ñi lu doy waar la. moo tax may la dañ ci am kersa sax pour xale yi fo yaay papa doom nga koy laaj. moo tax ñuy fo bàyyi xel seen bopp te xam ne réew mi nag maanaam sëriñ amagul woon su ma yeboone ah. si côté boobu. sëriñ amagul woon si wàllu seet yiñ fi jot a tudd nii man dama gëm ne sëriñam amagul woon. parce que nag waaw xam nga tey mën a wax ak ak sëriñ du benn. xam nga tey ñu dékk la micro nga sañse ba rafet téye sa kurus toog sa saal dafa neex. léegi nag tu def loolu di yooxu rek maanaam nit ñi man dama gëm ne sax nit ñi ñaanlootuñ si ki am xam-xam xam si ki ñuy ñaanlu ki mën a wax. lu ki mën a wax te ñaan dëgg dëgg dëgg dëgg. mu ngi tàmbalee si sell nit ki bala ngaa def dara da ngay sell. te alxuraan moo ne maa farat naa fi kitaabi ngi say alxuraan amul lu mu mënut bàyyiwul dara. te ñun si alquran lañ sukkandiku gannaaw alxuraan nag dañu jël ren ak sunguf. ndax yàlla bim ñu fi wàccee bind ñi daf ñu fi indi lu ñuy jëriñ. muy gàncax gi si gàncax googu la ñuy sukkandiku pour mën a doxal suñu mbir te gàncax googu moo ñuy dimbale ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax si côté boobu ah, sëñ Assane ah, rab jàpp nañ ñenn ñi mënuñoo am jëkkër rab jàpp nañ ñenn ñi di leen waxtuloo rab téye na ñenn ñi di yàq seen yaram ñu jékki-jékki rafetoon ba jàgg di furi ah, wala di oval wala ñii ñu jékki-jékki seen jëbi di génn rab li muy yàq bëri na waaw rab de doy waar la Eh, parce que booy xool li may wax rek téeméeri nit yooyu jël juróom-benn fukk yépp am nañ rab. des fois ma misaal ko nag ci ay mbir yu bëri ma ne leen rab dafa am rab bu fës bu nit ñi jàpp ne ku ko yor rek yaa yor rab te booboo gën a neex a faj. kii daanu. mooy daanu maanaam kii ah, crise ah, kii crise kooku leen jàpp ne moo yor rab. Hmm. fekk na tey bu dee askan wi téeméer la juróom-ñett fukk yëpp dañoo yor rab te xamuñu ko wala buñ ko xamee tamit joguñu si pour faju ko hmm. te rab dina indil nit ki mu toog di gaaw a mer hmm. rab dina téye nit ki si wàllu alal da nga gis koo xam ne alalam day bari lool hmm. mu jékki-jékki alal ji di seey seey bu gaaw rab da koy def da gis koo xam ne dafay bëgg jëkkër pour mu am ko problème lay doon te day mel na waroon mel am koo xam ne day bëgg jabar mu të ko te day mel na mu war a mel nga gis ne yooyu yëpp rab daf koy def maanaam yàlla def ñu fi bind wàccee ñu pour ñu jaamu ko wa maa xalaqtu jinne wal insi yàlla dafa bind nit ak jinne ñu wàcc pour ñu jaamu ko mm-hmm. léegi nag jaamu boobu ni jinne ni nit ñi amee ñu saay-saay ak jamono bi fi mu toll noonu la jinne yi amee ñu saay-saay mm-hmm. nit ñi seen saay-saay mooy ñu ngi reyante di njaaloo di def lu bon ci kaw suuf mm-hmm. jinne itam seen lu bon mooy ñu jàpp nit ñi topp leen sonal leen téyel seen wàllu wërsëg mm-hmm. moo tax ki yor rab dëgg wërsëgam léeg-léeg dana tëju ba jàpp na dañ ko liggéey ki yor rab dëgg dina dina dina dina dina bëgg soxna mu të ko wala mu bëgg jëkkër mu të ko loolu yëpp jinne yi dañ koy def maanaam rab dina sonal nit daal si côté yoo xam ne mënuñu koo lim fii yëpp maanaam rab siise la bu doy waar si côté boobu nga xam ne ñun yàgg nañ si am ay résultat fajal ko nit ba mu gis boppam maanaam rab moom duñ ko sax taxawaalu juróom-ñaari fan lañ koy faj hmm. maanaam ñun sin ñaan lu ci ëpp li ci gën Euh, neex man mooy juróom-ñaari fan duñ ko romb ak yow si wàllu waaw duñ ko romb. Euh, tey euh, mbirum këyit lan moo ci gën a gaaw. këyit papier. këyit këyit moom kuñ koy liggéeyal. Mhm. indil ñu suufu janj mhm. ak suufu xorondom buñ la ko defalee balaa ñetti fan bu dee da ko déposé woon léegi ñu woo la waaw. ayca numéro téléphone Serigne euh, Assane mbay borom Saalum Saalum mi ngi noonu affiché ci suufu écran bi képp ku ko ci wow rek di nga ko jot mais sëñ bi euh, yéen Saalum Saalum yi am na xeeti gàllaaju ngeen liggéey xamante ni ku ko jëfandikoo loo lekk mu rees ku ko jëfandikoo kenn du la jox ñam woo xamante ni daf lay yàq ku ko jëfandikoo euh, kenn du la sax wàllu feebar ana xeeti gàllaaj yooyu. <laughs> xeetu gàllaaj yooyu mu ngi fii waaye duñ koy génne si noonu. donc li tax ma ne la mu ngi fi duñ ko génnee si noonu mooy nit ku ne da ngaa war a jóg si sa bopp te sa bopp jaral la ku bëgg dara faaw nga def dara parce que parce que problème bi mooy jamono bi li ma lay wax nit ñi soxor nañ soxor goo xam ne poissonné nit ak def lu nekk mën nañ ko waaye ñun gàllaaj yi ñu yor si côté boobu nit ki su ko laalee képp koo xam ne dalay fexeel moom moo si mujj loru parce que ñaan la yoo xam ne soo ko defee nàndal ko sag njaboot rek njaboot gi mucc nañ nit mënatul leen fexeel maanaam te lépp ci alquran la nekk dama lay wax leen may la ñun lépp lu ñu am ci alquran lañ ko am ak ci kurus nee naa la sin kurus gii lépp lu ñu am moo ñu ko may lépp lu ñuy xool ci mbir nit pour wax ko ko tamit ci kurus gi lañ koy jaaree maanaam seet moom ci côté boobu lañ koy ci dañ koy xool ci seet mu génneel ñu ko ñu mën laa wax say mbir à part loolu nag garab yi nga xam ne dañ koy jàng kayfiyaat yi nga xam ne dañ koo am pour wàllu ñam wu aay ak yasa aju yooyu moom dañ koo fees dell ñun ay sëriñ dañuy ñëw sax ñu leen di dimbale si côté boobu. Mm-hmm. di leen jox di leen jox ay secret na leen def leen lii def leen. lii néew kàttan tamit yaa ngi koy jox ay sëriñ. secret néew kàttan. néew kàttan moom damay wax ne côté boobu dama siy ñëw ndax li tax mooy ma bëgg si dimbale ñu bëri ndax jamono bi ñu wér yombatul bëreetul. Mm. parce que booy xool dañuy wax naa day jàngoro yi muy hémorroïde ak cité effectivement néew kàttan dafay jóge ci mbir yu bëri muy lan hémorroïde ak siti néew kàttan daf fay jógee gannaaw loolu rab néew kàttan daf fay jógee beneen bi mooy lekk yu bon néew kàttan daf fay jógee parce que li tax ma lay wax lool demal ci àll bi ñiy lekk lekk bu baax dëgg ñooy ëpp doole ñi nga xam ne lekkuñ lekk bu baax dama lay wax ne nga añ mburu maanaam nga añ ceeb reer mburu ndékke mburu nga def ko weer wala semaine nga xool la ngay dem toilette ak ki nga xamante ne mu ngi lekk cere lekk laaxu daqaar lekk nangam nangam kooku chaque jour mën naa dem toilette ñaar wala ñett kooku nag loolu mën na dem ba dimbale ko su fekkente ne fawut loolu mën na dem ba dimbale ko mu ëpp ngóor a ki nga xam ne lekkut ko ki nga xam ne nag day foye boppam tamit loolu côté rab la xam na koo xam ne moom rab moo koy foloo boppam muy tëdd di gént gént yu ñàng yu koy sonal loolu tam mën na dem ba téye awraam parce que jinne ni muy sëyee ak doomu aadama dafa doy waar ndax jinne ni muy sëyee ak doomu aadama mooy lan felees bu gàtt la jinne bu ñëwoon pour sëyee eh, yow exemple bu ñëwee feles bu gàtt lay doon nga yëg sa bopp daanu yeewu sa tubay tooy bokkul ak yow mi jël sa matuwaay dem sëy ak soxna si léegi nag loolu soo demee ba tàmm ko sëy bi ngay sëy ak so euh, euh, jinne ji hmm. day dem ba yàgg loolu ngay tàmm ba yow ëllëg boo tiimee jigéen doo ci man dara loolu nag moo tax rab da koy def moo tax may la côté côté yooyu dañ ci am yu garaaw nag loo xam ne moo koy dindi alhamdulilah yàlla ngi siy dimbale daal ñu si sant yàlla di si dimbale ay jaami yàlla ay ci numéro téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ci woote rek di nga jot sañ Assane mbay saalum saalum sëñ Assane lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi waaye lan ngay dénk tamit euh, politiciens yi ci élection yi ñu jëm waaw li may tàggatoo mooy sant yàlla di wax na tamit yàlla may na nañu si benn mbir nga xam ne yàlla dogal na saa buñ ko waxee rek nit ñi dañ ciy teg bët daanaka wàllu politique dama ne sax wax si sax yombut ma waaye lépp lu ma la si wax rek ëwal téere ndax la wen neuf bii nit ñaa ngi doon coow am ñu ñëw si man wax ma maye leen dara du xew te alhamdulilah noonu la demee dañ ko mujj sa annulé élection yi tamit alhamdulilah laa ci gis leer na naa ñi sant yàlla laa ci gis sant yàlla gi mooy dina am jeex nit ñi xëy liggéey loolu moom incha allah moo ci am bu soobee yàlla gannaaw loolu ñu ngi ñaanal réew mi jàmm di ko ñaanal waa bitim réew yal yàlla def fi jàmm def ko ci mboole mi réew barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu waaye di sàkku rek tam gën ci yow yal ko suñu boroom defal bu dee safaan bala yàlla Euh, fànq ko ba bu mu si mm. barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke ay ca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi euh, Serigne Assane Mbaye Saloum Saloum waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la waaye waxtaan wi ngëneel la waxtaan wi xam-xam moom moo ko lal ak dëgg ah nituk Saloum la bu nee Saalum xel yëpp dem ci garab waaye boo nee Saalum xel dem ci jàng alxuraan waaye boo nee Saalum xel dem ci cosaan kon mbokk yi xam-xam cosaan la fekk baax. ay ci numéro téléphone sëriñ bi mu ngi noonu affiché ci suuf ecran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp du ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah